en euh, action. et eh, Sénégal Sénégal suñu waxu démb suñu waxu tey yéen a ñu yitteel ñun sénégalais yi ñoo ñu ñor du moment que yéen a suñu liggéey rek du ñu nelaw du ñu lekk du ñu naan dañu nam suñu xel yi ngir bégal leen choix saison bi attente bi yàgg na lool sollicitation bi bari na lool jot na nag fekk na ko jot yomb te il faut reculer pour mieux sauter soo bu ne tekk mooy tul baaxul suñu tekk mooy dañuy liggéey. kon nag ñu joxe leen rendez-vous bientôt incha allah vendredi bi incha allahu rabbi choix deuxième saison yëpp.